tey dama fi ñëw di masawu sunu mbokk yi ñu fekk ñoom ñu xam ne marché Kaolack daanaka économie senegal moo ko jur ñun ñii suñ papa Alaaji Baara fii la njëkk defee activité am fii la tamit ay mën naa la wax ay millier des entreprises yoo xam ne ñu ngi nekk Dakar fii la juddoo te marché Kaolack mooy marché bi nga xam ne nii dañ ko defar pour marché mooy espace boo xam ne nii c'est l'unique espace boo xam ni marché Sandaga sax du espace marché ah dañu ñëw teg ci trottoir bi mais kii marché la am ay bunt am ay lépp ah kon nag man li ma leen waxoon 2012 laa leen di waxaat mooy d'abord nit ki bala ñoo mën a dimbale da ngeen di ànd suñu rôle la nag ñu jàppale leen ngeen ànd muy chambre de commerce ñoom Matar Diaw a ngi fi ñoom Modou Mbacke ngi fi ngeen dajaloo dem chambre de commerce gi bu nu ñëw ak fam toll ñu xool ni leen di organiser loolu mooy première étape bi su ngeen ci paree ah ngeen xalaat joxe seen xalaat yéen ndax loo xam demba demba gëm laa xam boppam du noonu lañ koy waxee kenn mun leen wax li di def ngeen ñëw ngeen ne yéen lii ngeen gisee su ngeen ko gisee ñu conseillé leen maa ngi ñaan daal à part de tey muy responsable politique yi fi nekk yëpp muy en priorité le maire bi nga xam ne moo koy gere doo ay nañ teg fële ay diversance ñëw ensemble jël xalaat yi chambre de commerce am xalaat yi maire am xalaat yi autorité am ñu wone lii defar ko defar ko bi mooy comme li wax dëgg la doomu aadama mënul nekk fenn tegoo ko fenn fu baax ne ko génnal ma defar loolu dafa wóorul yaakaar naa suñ jógee waxtaan ak ñoom du ñàkk xalaat ndax gouvernance baa ngi fii lu mën a accueillir quelque temps ay nit lañ te soriwul marché bi ñu accueillir ko jël defaraat marché bi ndax dama koy wax dëgg rek suba ñu bàyyiwaat leen ngeen demaat foofu nekkaan na ngeen nekkoon du solution.